Assalamualaikum wa Senegal, assalamualaikum wa département de Koungheul assalamualaikum wa commune bu Ribot Escale ma ngi nuyu ñep di ziar ñep vraiment di sante ñep it ñi nga xamne ñi ngi sama ginnaw di ma déglu saa su nekk ah, vraiment bla may tambali ci li nga xamne momo fi euh, euh, waral tay sama jotay bi moy dina ñaanal ki nga xamne moy le feu El Ousmane Seck Ndiabar dama koy ñaanal yalla nako yalla xare aljanna di sakku tamit senegal yep ñaanal ko yàlla na ko yàlla xare aljana parce que tey euh, lu ji jak, rek moom mooy njaag kon alay usman yàlla na ko yàlla xare aljana tey di ñëw rek euh, di euh, leeral li nga xam ne moom moo am li nga xam ne mooy am moom mooy lan mooy dama démissionné ci poste assistant bi nga xam ne nekkoon naa ko ci honorable député maire Yaya Sow démissionné naa fa pour mu leer askan bi yépp

bokk fan couleur APR ci loolu ñu nekkoon di liggéey ba yàlla boole ñu ba mu nome ma ah benn instant dem na ba si benn jamono mu def benn génn wax am lu mu ŋàññi ci président loolu moom moo xam ne tax mu def ko ñun lu doon suñu devoir moo ñu toog conseiller ko waxtaan moom pour mu revenir en arrière parce que li ñu li ñu li ñu bokk lenn la muy président bi ñu toogee may ko chance boobu ah toujours musul delu ginaaw ci li nga xamne mom mo nek ci mom kon la ñun suñu gis gis maytuñu aussi que ñu top ko ci li nga xamne mom la nek man ama personne ak ñima andal maytuñu ñu top ko ci li nga xamne mom la nek parce que li ñu bokkon moy président de la république son excellence Macky Sall mom lañu gëm mom lañu ligéeyal mom lañu yaakar tamit ci lepp biñu démé ba xamne fofé mu ne woon fa ñu boole woon nekkatu fa am nañ sañ-sañ dellu ginnaaw dellu ginnaaw mooy la mooy toog liggéeyal njiitum réew mi parce que moom la ñu bëgg liggéeyal njiitum réew mi parce que moom moo nekk si ñun te loolu moo ñu boole woon bi ñu gis te loolu nag am nañ sañ-sañ dellu ginnaaw mooy ba ko mu dem ca la mu ne ñu nekk ca la ñu nekk mooy liggéeyal président topp ay ndigalam bàyyi ay tereem topp charte yi nga xam ne mooy chart parti bi lii mooy li nga xam ne ma war a def sama déclaration que ne démissionné naa ci poste boobu ak toutes les activités politiques yoo xam ne doon naa ko lëkkaloo ak honorable député maire Yaya Sow li ma waroon tey sama déclaration. tey su ma ne bàyyi naa activité politique yu ma ànd ak honorable député maire Yaya Sow c'est parce que maa ngi des biir APR parce que président de la république moo ma ñor moom laa gëm moom laay liggéeyal kon tey sama décision wala fi ma war a jëm. wala fu ma teg sama tànk wala fu ma xol sama bët ci ndigalu njiitu réew mi la mais du benn gang boo xam ne mi ngi si biir département bi bu tax ma def li ma def nii déedéet parce que lii c'est personnel si man la ne man maa am lu ma gëmoon am lu ma wegoon te gisatuma ko ma dellu ginnaaw di xaar ndagul njiitu réew mi xëyuma xëy rek dajale ay jeunes ànd ak ñoom di liggéey déedéet jeunes yi am na lu ñu gëmoon ci man askan ba am na lu ñu gëmoon ci man kilifa diine yi am na lu ñu gëm ci man